moy gis nañu Serigne mustapha si mu al mursidul am njital Moustarchidine mu mu am lu mu wax ñu xamone ko ak Sonko ñu nekkon ben andon ci election législative dan and ñu gis nak ci gamu gi passé mu melni dafa ko xawa sanni xeer ku nekk nak gis gis-gis bi ci am deglu nga wax ji yakar na ni am nga ci gis-gis ban gis-gis nga am ci wax jooju. jërëjëf euh, borom tawféex ci mm-hmm. question bobu nga xam question bu pertinente la. Mm-hmm. Euh, Serigne mustapha si mm-hmm. nek ko xam ñun dañu koy safoo. di ko ndax ñun suñu papa la suñu idole la te it borom xam-xam la mm-hmm. te yaakaar naa borom xam-xam mm-hmm. euh, dañuy wax ne ay waxam kenn ci mën a commentaire mm-hmm. mooy xale bu jàng boole kook am yar wala mag mu jàng boole kook am yar kon donc suñ Moustapha waxam jooji man damay wax ne din part damay ànd ak moom ndax man ku ma xam-xam ma ci patriote xam ma ci procès bi xam ma ci ànd ak Pastef waaye man Sonko côté boobu xaw naa ko balaame ndax comme ba muy metti doon na ànd ak Serigne Moustapha mhm. ñu defon ay coalition bam metté tamit mom dong bokk na ci ñi ko mhm. kon Serigne Moustapha limu wax deug la din mhm. part Sonko keroog comme ñew na ba Tiwaawoon war na fa jaar ziar ko yaay deug kon lolu njuumte la bo xam man japp na né premier ministre def nako ko nak, doomu adam matul nit day jum, te yenn responsabilité yi boo ko pour nga joom day yomb ndax li lay xaar ci liggéeyu askan wi banen bi ci tégué tamit ma japp né Serigne Moustapha comme si que Sonko domam la tayit amna ci lolou ñoko sekkon mhm. bu demee ba gis lu ko metti yakarna avant mo genn publiquement waron na jaar ci suuf ñu régler ba lolou savre mu doog genn di wax publiquement donc lolou dal lima ci wax moy Sonko waron na fa dem waye tamit seigne Moustapha wax gi dafa tel publiquement rawatina mu jaar ko ci politique ne ñong koy xaar ci législative yi. da nga jàpp ne loolu ko koo ko dama japp ne manon na wax en tant que li ñu séq te mhm. wax ne maa koy xaar ci politique wala mu wax ne li gënoon moy mu ñëw fi. Mhm. xaar ba xam lan moy xew avant mu ko maanaam euh, tëkku ci wàllu politique ndax yaakaar naa législative yi ñu jëm nii suñ ca demet bu boobaa bu dee lim doon séntu que ni ñoo ngi ciy xaar amut tamit boo boobaa yakaar naa dina doon loo xamante ni si du nekk la euh, dëgg-dëgg ci liy gën a rafet ci côté ci wàllum politique. macha allah ñu gis beneen affaire tamit boo xam ni xew na ci gàmm gi Ahmed Khalifa Niass ñëpp xam ko muy sëtu baay ñas euh, wala doom ci baay Niass bokk ci njaboot googu di kilifa boo xam ne it am am na ay taalibe mu doon gàmm. ñu dégg daal ci gàmm gi bëri na torop loo xam ne dafa doon wax ci wàllu intimité lan nga gisee lool loolu est-ce que kilifa war na doxalee noonu en tant que guddi gàmm. waaw bu dee Ahmad Khalifa Niass moom suñu papa la suñu maam la. Ah. waaye nag boo nekkee ci dëkk boo xam ne. Mm-hmm. xëy na bari na ñooñ seen dégg-dégg soriwul ci ndaw ñi mhm. te it mu nekk dëkk boo xam ne réseaux sociaux bari ci ñu koy utiliser mhm. seen jàng xëy na soriwuñ ci wàllu diine dëgg la te it guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee ba ciy waxtaan yaakaar naa warul génn borom guddi gi tey loo ci wax warul génn ngëneel dëgg la loo ci wax tamit warul génn teggin mhm. loo ciy wax warul génn lu rafet muy wàllu ci wàllum ihsaan iman islam ihsaan waaye kàddu yamu yëkkati mën nañ ne amul Euh, place ci gàmm gi amul place ci gàmm gi. Mhm. rawatina nag ku toll ni Ahmad Khalifa Niass nekk borom xam-xam. Mhm. ñu bari nangul ko ko te lu bari ci ay génnam su génnee day wax loo xam ne day réeral ñenn ñi. mu doon loo xam ne nag jàpp nañ ne kilifa warul waxee noonu. toog ci diggu baas. Mhm. di wax loo xamante ne si. maanaam amul lenn loo xam ne mën nañ ne moo tanga nga war ko wax jékki-jékki rek sa dem ci loo xam ne xëy na wax gi taxu ko am solo lool te it fa nga ko waxee. du ab palaasam. ni nga ko waxee Duni duni du ni mhm. ñun waruñ ko corriger ci wàllu xam-xam mhm. waye dekk bi ñu melni mhm. nga xamne suñuy wax lu ci bari dañ ko war di wodd ta amna ci lool même bu doon haramul sax so démé ba war ko wax da am foko wara waxé wala mu nekk débat bo xamne ne ci wax ba mu laal lool waye kenn xamul li mu wax lu ko andi tay mu nekk kàddu yo xamne c'est pas la première fois mu koy wax yaakaar na dafa jot ci ko xamne am nga njabot ñu bari di la suivre war nga di wodd say kàddu ndax xam-xam bu bi mëna moy xam-xam bi nga xamne da fay and ak euh, respect waaye fa kasratul ilmi bi xayril adabi jaalibatun ilal asaa wa temps bi na du ñun ñoo ko war a corriger waaye ci suñ gis-gis na mu waxee nekkul na mu war a waxee ci kilifa goo xam ne da bëri ñu lay topp rawatina nga nekkub sëriñ ami taalibe ndax am na ci koo xam ne jàngul su déggee mu wax rek dana amay xalifa borom xam-xam la lu mu wax noonu la te bari waa na ci émission yi plateau yi mu toog fa ñu laaj ko ab masala Sénégal ñii Malick lañ topp ñu bari ñii Saafi suñ la laajee ab masala ngir bañ a liiral réeral ñenn ñi mhm. ko top safi mhm. ne ko ah saafin kat ni la ko attee mhm. Malick nii la ko attee waaye ñu laaj la am masala ki la ko laaj manam top ngiru malik nga até ko ci saafin wala nga até ko ci Ahmad Ibn Hanbal Abu Hanifa bu boba lol da koy reral donc dal pour tënk mom euh, yaakar na ni gennam yu mujj yi war na ci xolaat bu baaxa baax ndax euh, borom xam-xam euh, war na di baye xel yéen nii dal lolou moy li nga xamne mom lañ ci wax macha allah am na am na solo fi ñuy tëjee rek suñu waxtaan mooy gis nañ tamit parce que dañuy résumer li nga xam ne moo xew ci gàmm gi nga wax ci sa mhm. xalaat gis nañ tamit yaa ngi fii Tiwaawan sori woo lool kër Aziz Ndiaye dëgg la ñu dégg tamit coow yi nga xam ne am nañ ci dañ di doon folklore oustaz Modou Fall oustaz euh, diw euh, gàmm wuñu dañ doon caaxaan kiis la mu sol yow seetaan nga loolu it noo ko gisee ak jàpp nga ni folklore bi ñuy wax kër Aziz Ndiaye ndax amoon na fa ndax sori woo ko woon ci gàmm gi waaw loolu moom yaakaar naa danañ ci mën a wax. Mhm. tey luñ ci wax luñ xam la. Mhm. ndax jamono ji fi ñu taxaw di wax ni mën nañ ne ñoo ngi tiim kër Assis. waaw kon mën nañ ne kër yi ñoo taxaloo. Mhm. tey it euh, ñun mën nañ ne fa lañ gàmmoo daanaka. waaw ndax bokk nañ ci ñi fa doon jàng kaamil. te yaakaar naa bokk na ci limu kaamil lañ fa tudd ne. Assis jàngulu na ko. ñu ñun ñu jàng fa. moo ngi toll ci ñetti téeméeri kaamil. te yaakaar naa gàmm boo ci génnee karim gamu. dara du ca des mhm. ndax boroom gàmm gi di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom lañ wàcce alquranul karim mhm. te këram nga jàng nañ fa alquran mhm. nit nag dañuy wax ne maanaam ay mbiram ay jëfam munoo jël ne lépp baaxut waaye nag doomu aadama bu juumee la nga koy dimbale mooy li yonent bi doon wax naan unsur aqaaka euh, maanaam na nga dimbale sa mbokk ci bu juume nga ne ko da juum dégg nga kon nag euh, li fa bari na ci loo xam ne am na folklore am na caaxaan yu fa amoon waaye nag pas du tout nekkul lépp ndax li ëpp solo ci ni ñuy waajee gàmm. Mm-hmm. këram mën nañ ne chaque danañ ko def muy waajalee ko alquranul karim. Mm-hmm. te it bokk na ci. est ce que jàppoo tamit yu baax yooyu comme ceeb bi mu doon joxe. Mm-hmm. nak yi yooyu tamit bañ demee bay tudd li nga xam ni jàpp nañu njuumte la. waroon nañ ko war a mën a tuddaale. xam nga Sénégal da di réew moo xam ne. suñ la xamalee lu baax. xamal la lu bon. lu bon la la ñuy génn. <laughs> te moo ne alxuraan waxoon na. innal xasanaati. yusib na sayiaati wallahi maanaam nit ki soo ko xamalee lu bon xamal ko lu baax mm-hmm. waxal lu baax yi ndax innal xasanaat yusib na sayiaat yu rafet yi day représenté yuy ñaaw yi mm-hmm. yu rafet yi bu xasee ñëw rek mm-hmm. nit ñi dootul lijjanti yu baax yi kon donc bari waana lu mu def ci gàmm gi man murit la waaye daanaa dégg assis assis màggal gi ma fi njëkk a ñëw fekk muy séddale ay camion yi ceeb ak di séddale yàpp ci laa nit boo ko xamul na nga maanu ci ay mbiram ba karo nga koy xam la nag man dama jàpp ne yi fi xew man na bañ a doon Aziz mhm. waaye bari waa na koo xam ne ba muy jóge dakaar mhm. di fi ñëw mhm. Aziz mënu ko wax solool nii wala defeel nii ki ñëw biir Aziz nag kër Aziz Aziz du la jànni jàpp naa ne du la dàq génn la waaye yow yaa war a corriger bopp na man ci gàmm laa jëm gàmm ko nii lay solo naa ne Aziz waxul kenn solo nii est moom it ñi muy teg ci buntu bi war na leen a war a mën a wax ku solo nii ku solo nii bu ëllëgee ku solo nii ku solo nii bu ñëwee bu mu dugg deug la mom responsable la ci mbir mi. Mhm. ndax mom mom kërëm mhm. té yi gaay yi génn di ko dal kërëm la xewé mhm. war na fexe ba mu tiré ci leçon. wayé tay nit ñi dal ci kaw nañu xamné ne ci kaw ki ñuy dal bëgg na gor gor bëgg na def lu bax té amna yu bax yi mi def ci gamu gi. nañ ko nangul yoy té yi mu baña doon yo xamné ne yii publiquement la di ko nit ki bu juumee boo bëggé corriger da ngay tok wéet ak mom nga ne ko da nga joom wayé so génnee def vidéo ngir bëgg ay fi ngir bëgg ko xass te nag Sénégal coow li bari nañu ci rax ño xamni visibilité comme moom siiw na boo ci waxee nit ñi seetaan la moo waral ñu di ci wax. xam nga Sénégal dafa toll foo xam ne. Mm-hmm. bari waa na ko taxaw di xas nit te kam yi xase ko gën. Mm-hmm. waaye da koy xas. Mm-hmm. ngir am ay vie. xas ko ngir am visibilité. te man jàpp naa ne. ca dëgg-dëgg. Aziz Ndiaye. gàmm gi këram amoon na ay fo. waaye nag la fa nekkoon ci lu baax moo ëpp fuuf. li yi gis. kon donc man li ma ci mën a wax daal man. lu baax li ma xam ci moom. te gàmmoo këram man maa ngi koy apprécier. muy alal ji nga xam ne yëkkati ne ko. Mm-hmm. ay dund di ko jox nit ñi. Mm-hmm. ay yàpp di ko jox nit ñi. Mm-hmm. te dañuy wax ne jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla mooy nga jaamu yàlla ci jaama bi. yëkkati aw ñam jox ko nit ki mu lekk. loolu de moo gën tabax junniy juma. wallaahi te Aziz loolu man mii di wax ak yow yaakaar naa xam nga ma joxuma ñaar dërëm. déedéet yaa ngi dégg. waaye nag damay wax rek te yàlla tax. dëgg la man lu fa xew ci lu ñaaw. warul ci guddi yonente bi. guddi yonente bi waruñu def lu dul jàng alxuraan. Mhm. tagg yonente bi. sallallahu alayhi wa sallam laneen lu fa am nag lu dul loolu ay caaxaan la maa ngi koy ñaawlu Aziz war na ci wax. waaye nag lim def ci lu rafet. moo ëpp fuuf ñi génn ji daal ci kawam ak di ko xas ku bëgg koo dimbale ku ko bëgg a dimbale taalal sa oto ñëw ci moom na ko bëggoon naa ñu waxtaan guddi gàmmu gi am sa kër war nga si jug waaye gars yi kat dañuy gis maam Ndiaye Safo mu jugee Dakar ñëw kër Assis. Mhm. est-ce que kooku Assis mën na ci moom dara maam Ndiaye Savon bu dul kër Assis sax moo ngi def loo xam ne kenn apprécier ko di def loo xam ne baaxul ci société bi di xas ay gor di génn def loo xam ne l'islam da koy tere kooku bu ñëwee kër Assis lan la Assis man ci moom ndax da koy toroxal léegi nag ki en maam Ndiaye Savon bëgg a jaar ci maam Ndiaye dal ci kaw Assis kooku ay mbiram la waaye nit ki boo ko bëggee dimbale da nga koy woo téléphone. waaye génn di ko attaqué a di ko dal loolu day mel ne da nga am ak moom règlement de compte loolu moom mooy li xam ne moom lañ wax. dëgg la macha allah am na solo xam naa daal waxtaan wi yëpp liñ ci waroon a wax wax nga ko dañ lay bàyyi rek nga daal di joxe kàddu gu mujj gi ci émission bi ba beneen incha allah. donc li wax rek mooy di santaat yàlla baax di julli ci yonent bi di wax euh, lépp loo xam ne lu jub ci kàddu yi la. Mhm. ñu xam ne ndimbalul suñu borom la. lu ci juba di xam ne wa xuliqal insaanu da'iifan. Mhm. li ñu doon wax amuñ ci wax rek te yàlla waaye tamit di wax. fi suñu xam-xam toll ànd ak suñu xel mu rafet tey lépp ñu jëm ko teg ci eh, ay tegin mhm. di daaneel nag di wax mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy siifu Tawfekh TV. Mhm. moom mooy seen bu baax bi. mag bi seen bi nga xam ne. Mhm. moo leen di dégtal. lépp lu ngeen soxla. moo xam lu jëm ci wàllum religion. waaye seen bi nga xam ne. gaa yi gis lu baax. gaa yi bëgg a gis lu rafet gaa yi bëgg am ay information yu wóor nañ dem toppi ji Tawfekh tey abonné di partager. di aimer tey zem wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf